jot li nuyoo mboolem kilifa yu tedd yoo ànd ak yëpp daa ko ànd ak ñoom ak mboolem ñi nga xam ne ñoom lañ seq ak jotaay bi di seq di seq jëm ngir xam ne nag sedd fi waxtu yu toll ak fi àdduna toll moo tax ñu tënk ko rek gàttal ko seet li ñàkk rek ci ñi mënta ñàkk teew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 Serigne Saliou Mbacké daana wax ne yaakaar ju tas miin yoon ko Serigne Touba kon nañ xam ne yaakaar ji taalibe yi am ak yaakaar jullit yëpp am di dundal ci ndigalu Serigne Touba la ñëpp day ñëw jàmm ba delluwaat ak jàmm te jàmm rek xew ni ñu ko yàlla defaloon daaw am nañ yaqin ci ne suñu borom danañu ko defal lu ëpp loolu wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu